yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ndox mu bari mi ne gàññi ca Touba ci la l'observateur xëy di xuus Touba tout haut maanaam dëkk ba léppum ndox la nii la ko journal bi bindee ci xëtamu njëkk ci biir mu ñuy wax ne ci jamono ji nga xam ne ay fan yu néew moo des suñu digg ak màggalu Touba gi ca Touba goge bari na fa ay kër ak quartier yu inondé ba fees dell yéen kaay bi nañu donte waa ONAS di office national assainissement ak waa OFOR def nañu fa liggéey bu mag boole seen doole ngir saafara inondation yi ca dëkk ba terewul ndox maa nga ne fa jasar ne fa xus muy ca ndaamaatu di ca jànnatul maxwa ca quartier yoonu daaru xudóos gaaraasu daaru muxti ba ngelamu fu ci nekk Abdoulaye Bamba Sall bu l'observateur dem na fa daje faak askan wa inondé taataan seenub coon ak seenub jaaxle ba tegal ñi ko ci xët mu njëkk journal bi am na kenn ci ñoom ku ko xamal ne fi ñu nekk nii fu ñu teg seeni ndab ba mën a togg sax amuñu ko am ku ko tegalit ne yi ñu jëndoon ngir di ko dunde ak yi ñu waroon a togg ci màggal gi daanaka lépp la ndox mi nangu direct ci news mi tur bi ne ko amul sikki sàkk gouvernement bi tëlee la def ci régler coowal inondation yi ca mi bi nee nañu jurul lu bari premier ngi laaj fan la mesure am mujj Vox Populi ak lii quotidien xëy àndandoo di ñu xamal seen xët yu njëkk ne ministre intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome nee na engagement yi état bu Sénégal jëloon jëm ci màggal gi muy ci courant bi di ci assainissement bi bu dee engagement yi téeméer la woon def nañu juróom-ñeent fukk ak ñaari mu di 92 pour cent yi journal lay fa nañu waaye terewul am na ay rëq-rëq di manquement yu ñu nemmee ko ba duut ca baaraam Serigne Ousmane Mbacké coordonnateur comité d'organisation bu 18 safar bi journal lay nañu moom li ko mitti nee na mooy retard yi am ci travaux yi ñu doon def ngir régler problème yu inondation yi ci Touba li mu bëgg a xam moom sëriñ bi mooy lan moo tax ñu yeex a songu liggéey bi Serigne Bassirou Mbacké Abdou porte-parole xalifa général des mourides journal mi ngi nawet bi lay am ci jamono joo xam ne ndox mu bari dafay wàcc moo tax a yu may jàmbat ay jafe-jafe yu ñu am ci courant bi ci jamonoy màggal ba tax na lu ngeen ci doon def rek ñoo ngi leen di ñaan ngeen yokk ko Cheikh Mohamed Fadal Mbacke mooy ki matal Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mooy ki yokk waaye ki fondement di Cheikh Modou Moustapha moom la sonnal bés bi le jour xëy jagleel xëtamu njëkk ci bésub tey bi Cheikh Modou Moustapha Mbacke mi njëkk a doon xalifab Serigne Touba Cheikh Mat Bamba Xaadim Rasul yéenekaay bi mi ngi ñuy jukkil yenn ci liggéey bu rëy bi mu liggéeyal yoonu murit ci weneen wàllit journal bés bi le jour mi ngi ñuy xamal ne suba ci Sénégal journal Le Témoin nee nañu dogal bi ñu fi jëloon jëm ci wàññi njëgulu yaas bi yëf ya ci échec total ci la mujj ndax tey la wàllu gën a ay Mor Gassama dib économiste di ñu wax ci journal bi ne mesures yi état jëloon na ko jëm ci wàññi njëgulu yaas bi dogal yi mu di mesures yi amuñu njariñ ci askan wi réeroo am na ci waa kër Ousmane Sonko yi journal Le Quotidien moo ko bind li ñu dégg keroog docteur Diallo Diop wax ko mu di budul Ousmane Sonko di keneen waaye doon keneen ku dul Ousmane Sonko moom Ousmane Sonko moomee Le Quotidien mi ngi ñuy xamal ci xët mu njëkk ne Serigne Habib Sy Dabakh mi ngi koy ñaan mu dakkal grève de faim bi muy def ñu def demi dellu ci l'Observateur ca quartier Pikine ga ca Ndar bari fa ay famille yu nekk ci jaaxle gu rëy jamono ji li ko waral yéenekaay bi nee nañu moo di seen doom yu bari dañoo jëloon gaal doon dem bitim réew ba ñu demee ak léegi def na weeru yàlla te ba léegi dégguñu ci ñoom dara dara jarul li ci suur soi ubbil yéenekaay bi histoire Salif Ba ñuy nettali Salif Ba ab commerçant bu mag la woon ca marché aslem jóge woon Sénégal ne dafay jaare ngir dugg Amérique ca la demee Mauritanie jóge fa jàll Maroc jóge Maroc dem Espagne laata muy wàcc ca Bogota ga ca Colombie ngir dugg Nicaragua keroog dimanche ji weesu suur soi nee nañu ca lay soog a dugg Amérique waaye ba mu nee cëpp ci aéroport John Fitzgerald Kennedy bu New York fa la faatoo